Sénégal ñëpp ma fekk leen ci salle bi ñu accompagner le président Abdoulaye Sylla président ñii nga àndal ay gor laa gis nii ñu toog dend ak yow bu ma xoolee fii ay gor laa gis nii ñu toog dend ak yow président Aliou bi nii Woré Sarr mu nuyu bu ma leen gisee kii jigéen la ñoo xamante ne nii benn jigéen rek la ci Sénégal am fulla am fayda mu nuyu maa ngi am mbégte ci di nuyu bu baax ki nga xamante ne mooy Serigne Mbacke Ndiaye Aliou Lo jërëjëf mbokk yi man dama fee ñëw dama fay si man bor may fay gor sii moo ma ko lebal tey ko mus a teg bët nga ne tey mi ngi nii tey la ma mus a gis di ko waxati fu ne taxaw naa fa mu Njaasaan yaa ngi ci lu xew ci réew mi yaa ngi ci yaa ngi jàppale ndaw ñi di jàppale association yi di jàppale femme de développement yi dama ne daal li ma leen di waxal sama wax du ci ci gàtt du njaay meew booy jàpp jàppal ak gor gor saa ngi nii képp koo xam ne yaakaar nga développement ci biir réew mi bu li ko tax a jóg mooy développer Sénégal président jërëjëf jërëjëf jërëjëf encore une fois ma nuyu jërë ngeen ñëw What's my name? What's my name?

président bi jaay lekk way jawwani way yii ɗum ɗa fof woni président Macky Sall an ko woni président Abdoulaye Sylla yalɗanoɗi ko watta seeɗa fuɗɗi président ko walla ala yimɓe leydu sénégal wattama wa